allo waaw maa ngi lay dégg waaw maa ngi lay dégg c'est bon baax na الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci sunu dars siira ba tey ñu toll ci xutbatu xajjatul wadaa xam ngeen ne ñëwoon nañ ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam aj ajam gu mujj xutba ci ba mu demee ba jeexal ajam nag waxoon nañ ne dafa dajale mbooloo mi daal di delluwaat nag foofu ñu naan tayba te mooy madinatul munawwar mbokk yi wa fi awaili safar sanata ihda ashara lil hijra xaraja alayhi salaatu wasalaam ila uhudin ci njëlbeenu weer wu ñuy wax safar ci atam fukk at ak benn ca gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu demee màkk def fa fukki at ak benn ci weer wuñ naan weeru safar ginnaaw ba mu dellusee ci ajam googu di aj gu mujj génn na moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nag jëm uhud ci doj woowu nga xam ne fala dajaloon ak waa quraysh xare fa ak ñoom xarem bu metti ba te lu bari ci saxaaba yi daal di fay des bokk na jafa des ci ci kàngami saxaaba yi Hamza ibnu Abdul Muttalib moom yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam bi mu reggee Uhud fa salla ala shuhada ñaanal na ñi fa faatu woon te saxaaba ya ak jullit ya mu nekk ya mu àndal ñaanal leen kal muwadda lil ahyaai wal amwaat mu ngi mel ni keroog moom yonente alayhi salaatu wasalaam da doon tàggu néew yi comme kuy dund nu muy tàggoo kuy dund ni ni di dunde gis ci kanamam dara wala ñaaw njort ci dundam bay dénkaane keroog yonente alayhi salaatu wasalaam dem na Uhud ñaanal néew yi waaye dafa mel ne da doon doon tàggu comme kuy dund kuy tàggu ñiy dund ay mbokkam ginnaaw loolu tourné na nag départ dellu madinatul munawar ba mu ñëwee moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa jubal direct ci minbaram ci jàkkaam ja fa qaala inni faradtukum wa inni shahidun alaykum wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al an mu ne man de yëgal naa maa ngi leen di yëgal ne danaa leen jiitu waaye yëg leen ne ëllëg yowmal xiyaam maay ki leen di seede mun taxawee ci kanamu yàlla maa ngi leen di yëgal ne yéen samay saxaaba mu ngi mel ne tey fii ma toog jàkkaarloog yéen mu ngi mel ne maa ngi jàkkaarloog sama mbalka mi ma yàlla tabaxal ne ëllëg maa ko moom déeg gi nga xam ne man maa ko moom xaw bi ngi mel ne maa ngi jàkkaarloog ndox moomu dex googu mbalka boobu ngi mel ne maa ngi jàkkaarloog moom wa inni ataytu mafatih xazain al ard maa ngi leen di yëgal ni fi ma toog man yonente alayhi salaatu wasalaam yàlla won na ma jox ma caabi magasin suuf si magasin suuf si mafatih al ard jox nañ ma ko inni wallahi ma axaafu an tushriku baadi walakinni axaafu alaykum an tanafasu fiha muttafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ragaluma ci yéen ngeen bokkaale sama ginnaaw wa inni wallahi ma axaafu an tushriku ragaluma ngeen bokkaale sama ginnaaw baadi walakinni axaafu alaykum an tanafasu fiha li ma ragal daal mooy ma génn àdduna ngeen di xëccoo àdduna sama ginnaaw ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee Uhud ndénkaane gam fa def tàggu néew yi ba mu delsee ci dëkk bi di Médine lool la def dajale saxaaba yi ci jàkka ji ne leen man de danaa leen jiitu waaye yëg ne dem ëllëg yowmal qiyaam maay ku leen di seede wa inni shahidun aleykum maay taxaw ci kanamu borom bi di leen seede ne yàlla yónni na ma ñëw naa jottali naa leeral naa jàngale naa amul lenn loo xam ne bu ngeen ko defee dugg aljana lu dul wan naa leen ko jàngal naa leen ko amul lenn loo xamante ne bu ngeen ko defee dugg safara lu teral naa leen ko soril naa leen ko maa ngi leen di yëgal ne tey maa ngi jàkkaarloog dex googu yàlla dig ma ca yowmal qiyaam mu ngi mel ne maa ngi nii toog jàkkaarloog moom yàlla jox na ma caabi magasin suuf si ragaluma ci yéen ngeen bokkaale ëllëg sama ginnaaw waaye li ma ragal mooy yàlla ubbi leen àdduna ngeen di xëccoo àdduna sama ginnaaw fa xaraja layla ma a gulaamihi abi muwayhib ila albaqi fastaghfara lahum dem na uhud ñëw na ci jàkka ji dénk saxaaba yi bi guddi gi jotee mu daal di génn ànd ak xalem bu tudd abu muwayhib mu ànd ak moom ñu jëm baqi baqi lañ suul saxaaba yeeg waa këram ca armeel ya fastaghfara lahum mu jéggalu leen ndeysaan mu ñaanal leen yàlla ñoom néew yooyu tëdd foofu bokk na ca la mu wax néew ya assalaamu aleykum ya ahlal maqabir yéen ñoñi armeel yi maa ngi leen di nuyu allahu akbar keroog de armeel yi rëy na am nañ gan gu rëy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam moo bàyyi dëkk bi génn ci jàkkaam ju sell ji jéegu ay jéegu fu mu jëm te jàkkaam ji ca armeelam ya fa mu denc mbokkam ya ak saxaabaam yi sëtam yeeg soxnaam ya fa mu leen denc fa la jëm ba mu demee jéggalu loon la leen yàlla jéggul na leen yàlla ñaan na yàlla yàlla jéggal leen mu nuyu leen ñoom waa bàmmeel yi ne leen maa asbaxtum fiihi bi ma asbaxa annaas fiihi mbaa du yéen la ngeen nekk tey yéen waa armeel yi du loolu la nit ñi nekke maa ngi leen di yëgandiri yéen waa armeel yi aqbalat al fitna ka qitaai leyli l muslim li ngeen bàyyi ginnaaw fii daal fitna gu rëy goo xam ne ñuul na ba mel ne daggitu guddi moom ngeen bàyyi ginnaaw àddina de loolu la fi nekk xaw ma nag ndax yéen lu ngeen fekk foofu waaye seen ginnaaw de lu ngeen fi bàyyi fitna gu mel ne lëndëmu guddi moom ngeen fi bàyyi ginnaaw yattabiu axiruha awaluha al axiratu charrun min al ula te yonent bi nee na fitna yooyu bu dem rek beneen ñëw bu dem rek am bu mujj ginnaawam te yonent bi nee na li ci doy waar mooy bii ñëw ginnaaw mooy gën a bon ba njëkk a dem ba basharahum qailan inni bikum laahiqun yonent bi bégal na leen ñoom waa armeel yi ne leen maa ngi ñëw léegi maa ngi leen di topp léegi ma wuy si leen allahu akbar mbokk yi ñetti ndenkaane la yonent bi def ñetti ziyaara la yonent bi def dem na Uhud ziyaare ji néew yi ñëw ci jàkka ji wax ak saxaaba yi dem ci bàmmeeli baqiya wax ak néew yi fa tëdd yëgal néew yi ne maa ngi nii di ñëw maa leen di topp ba muy dem baqi mu ngi ànd ak gonem nga abi mooy hib moom la àndal baqiya bi mu eggee daf leen jéggalul yàlla sàkku ci boromam jalla jalaaluhu pour yàlla baal leen ñoom néew yi tëdd foofu moo tax nit bu demee ci ay armeel du ñaan armeel bi du ñaan ñi tëdd ci armeel yi waaye da leen di ñaanal njéggalul yàlla tabaraka wa taala gis nga ñun erreur yi ñuy def njuumte yi ñuy def dañuy fekku dee ñu koy ñaan dama bëgg visa dama bëgg tukki dama bëgg sëy dama bëgg soxla dama bëgg liggéey kuy ñaan yàlla ngay ñaan kenn du ñaan armeel kenn du ñaan ku dee ku dee amul dara amul lu mu maye fi yowmi lisnayni axiri ayaami sahri safar sahida alayhi salatu wasalaam janaza fi lbaqi ci weer woowu ba tey ñu naan weeru safar ci fanam yu mujj ya benn bis ci altine ya ci altine gi mujj ci weeru safar yonent bi alayhi salatu wasalaam gunge na néew ba ñu suul néew bi ci bàmmeel yi mu nga xam ne mooy bàmmeelu saxaaba yi mooy baqiya fi yonent bi di suul doon suul àndandoom ya ak mbokkam ya ak soxnaam ya armeel yooyu yonent bi gunge na fa néew ci bisu altine bi mujj ci weeru safar ñu suul néew bi falamma rajaa huwa fi tariq axazahu suda fi rasihi ba nga xamante ne dellu si na nag jóge na ci armeele di dellu këram ci naaj bu tàng bi yonent bi sentir sibru di ko yoot bopp bi di metti mu yëg ne tàngaay wu réyang ci yaramam xataa innahum kaanu yajiduuna suurataha fawqa al isooba allati taasubu biha rasa rasahu sallallahu alayhi wa sallam ba bi tàng na tàngaay goo xam ne lenn ca ñamu àndaloon ca robba doon nañ sentir tàngaay bi jàpp bopp yonent bi siddit yi sax mu ngi marqué ci bopp bi ci jëbi fa daxala ala Aïcha yonent bi dugg néegu Aïcha wa qaalat waa raasa ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam mooy woy sama bopp bi waa raasa woy sama bopp bi sallallahu alayhi wa sallam yaay Aysa ne ko bal ana waa raasa yow de sa bopp méttiwul man mii la sama bopp di métti ndeysaan dëkk yaay Aysa sentir na ko moom tamit boppam a ngay métti sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko wa ma darraka law mitta qabli fa xasaltuki wa kafantuki wa sallaytu alayki wa dafantuki waaw yow Aïcha nga ni sa bopp day metti ndax dina la lor soo ma njëkkee faatu yow Aïcha ma sangal la sama bopp ci samay loxo ma sangal la samay loxo ma jullee la ma suulal la sama bopp ndax dina la neex fa qaala laka anni bika wallah Aïcha ne ko man kay ñaanuma yàlla loolu li may ñaan yàlla mooy yow nga njëkk maa dee ah ndeysaan law faalta zalik ah yow yonent billaay yow xam naa li nga bëgg mooy ma dee nga takk keneen indi ko sama néeg law faalta zalik la rajaata ila bayti fa arrasta fihi ba bi baadi nisaik ndeysaan gis nga fiiraange aa yow nag xam naa li nga bëgg mooy ma dee léegi nga takk weneen jigéen indi ko sama biir néeg céetal ko fa yonent baa ngi feebar de waaye fa tabassama rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di muuñ ndeysaan daal di xam ne rek li mbiru jigéen la jigéen rek moom fiiraange ndeysaan xoolal li ko yonent wax ni mu neexee ay sa ndax du la neex nga njëkk maa faatu ma sangal la sama bopp sangal la sama bopp jullee la sama bopp suuleel la sama bopp mu ne ko lu tax ndax du la neex mu ne ko déedéet bal yow kay yaa may njëkk a dee ah xam naa dangaa bëgg ma njëkk a dee rek nga takk beneen jigéen indi sama biir nekk ndeysaan mbokk yi feebar bi gën a yokk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa thaqala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al marad feebar bi gën a métti ci yonente bi fa jaala yasalu azwaajahu moom yonent bi li feebar bi di métti métti métti métti mooy ki maandu ki yàlla yónni noonu lay wëree biir néegu soxnaam yi di aye fa jaala yasalu azwaajahu ayna ana gadan ayna ana gadan mënatul dox sax dañ koy tingoom jàpp ci mbagg yi tànk yi diriiku ñu koy yóbbu ci néeg bu mu aye fu mu dugg rek na fan laa aye tey ayna ana gadan waa man suba fan laa aye ay suba fan laa aye kon góor ñi aye war nañu xalaat lool de takk jabar rek abandonné kenn ki di fanaan fenn tudde fenn fi aljanna wala tudde fenn fi safara booy aye ji fenn yi naan maa ngi dem aljanna wala maa ngi dem kër noflaay wala maa ngi dem nangam sooy dem feneen fi kenn du xam doo tàggoo doo wax kenn dara du ko doo yëg doo yëg dara lu neex sa xol loolu du maandute loolu mbokk yi du ragal yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy sunu yonent mooy sunu roykaay moo ngi nii feebar ba munul taxaw ñu jàpp ci mbagg yi terewul muy laaj soxnaam yi ay na ana gadan ay na ana gadan moo fan la ay ëllëg moo fan la ay ëllëg fa fahim na muraadahu ñoom soxna yi xam nañ yonent bi li mu namm fa azina lahu an yakunu haysu sha ñu ne ko nekkal fu la neex dangaa feebar xoolal foo mën a nekk rek nga nekk fa ba nga tane bal sax ñun d'accord nañ nekkal néegu Aïcha ndax mooy xale bu gën a ndaw moo la gën a mën a toppatoo ñun ay mag lañ ñu daal di koy dugal néegu Aïcha ñi ko doon jàppoo mooy Fudayl ibnu Abbas ak Ali ibnu Abi Talib ñii ñoo ko doon jàppoo muy ay ayloo ci néeg yi ñii doon sotti ndox ci bopp bi bopp baa ngi tàng jër ndax mettitu sibbiru bi wàññeeku Aïcha moo doon jàng qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu bi rabbin naas di ko tëfli ci loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko raay ci kanamu yonent bi ak bopp bi ndax jàpp ne loxo yi yonent bi ñoo ëpp barke loxoom sallallahu alayhi wa sallam bu jàngee qul a'uuzu bi rabbil falaq jàng qul a'uuzu bi rabbin naas dékk loxo yi yonent bi daal di ko ciy tëfli daal di accompagner loxo yi ba ci bopp yonent bi ak kanam gi daal di ko ciy raay mu mel ne yonent bi moo ko raayal boppam mbokk yi feebar bi gën naa metti ci sunu sang sunu yonent muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bisub àllarba ci bisub àllarba wa fi yowmil arbia keroog feebar bi gën na tar ci moom ci yarambam bi ci tàngaay bi ba dañ daan jël ndox di ko sotti ci yaram bi allahu akbar ndax tàngaay bi yaram bi tàng mu naan xarriqu alayya min sabi qirab sotti leen ci sama kaw juróom ñaari baagu ndox de leen ma sotti ndox ndax tàngaay bi ni mu tàngee muy sàkku ci saxaaba yi naan xarriqu alayya sotti leen ci man ala sabi qirab sotti leen ci man ay këllu ndox tànq leen ay këll ba mu mat juróom ñaari ngeen koy këpp sama kaw allahu akbar ñu toogloo ko ñu sotti ndox ci yaram bi yenn saa yi mu xaw a tane seddaayu ndox mi daal di wàññi tàngaayu yaram bi mu ne leen xasbukum xasbukum doy na doy na ci jamono yooyu mu commencé sentir tane mu dugg ci jàkka ji baat baa ngi sëgg ba baa ngi sëgg wa huwa maasubu raas xataa jalasa alal minbar yonent bi góorgóorlu keroog dugg ci jàkka jeeg loos bu damm tàngaayu yaram bopp buy métti mu daal di toog ci kaw minbar bi mu xutba ci nit ñi xataba nnaas fa qaal ma nga leen di dénk waaye ma nga leen di bàyyiloo xel mu ne leen laanatullahi alal yahud yal na yàlla rëbb yahuud yi wa nasaara ak chrétiens yi ittaxasu qubura ambiyaihim masajid ndax dañoo jàkk seeni bàmmeelu yonent def ko ay jàkk yal na yàlla rëbb yahud ak nasaraan dañoo jàpp bàmmeelu yonent ya def ko ay jàkk mu ne leen laa tattaxisu qabri wasanan bu leen jël sama bàmmeel bi def ko ab xërëm di ko jaamu wasanan yuxbat bu leen jàpp sama bàmmeel bi def ko xërëm di ko jaamu comme tey ni ñuy jaamu bàmmeel def ko ay xërëm allahu akbar summa qaala man kuntu jallattu lahu zahran fa haza zahri sallallahu alayhi wa sallam laaj na keroog lu doy waar ana kan ci yéen laa mos a dóor sama ginnaaw a ngi ne ñëw fayu ana kan ci yéen laa mos a gaañ sama yaram a ngi nii na ñëw fayu kan ci yéen laa mos a yàq deram sama dera ngi nii na ñëw fayu am benn saxaaba ci biir saxaaba yi ne ko dóoroon nga ma de yonent bi nekk lu ci xalaat mu ne ko damay fayu damay fayu de saxaaba yi daal di tëb gàddu seeni jaasi ne ko yow yonent baa ngi feebar te kii la yàlla yónni nga naan dangay fayu mu ne leen damay fayu Seydina Ali radiyallahu anhu wa ardaahu sànni mbubbam simmeeku def yaramu neen ne ko fayul fii mu ne ko fayu ma sa yoon nekk ci fayu ma ci yow yonent bi ma dóoroon ci sa sahaaba boobu ci yonent bi laay fayu kon mbokk yi ci sahaaba boobu bëgg a fayu ci yonent bi dóoroon ko yonent bi nekk ci sukuraat ci métit ñuy sotti ci moom ndox bopp bi métti yonent bi toog ci kaw minbar ci jàkkaam ji fii la ñuy daggee dars bi incha allah ba dimanche bii di ñëw ñu wax saxaaba boobu kan la ak ndax fayu na wala fayiwul ak sukuraatu yonent bi ni mu continuer bi isnillahi tabaraka wa taala ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.